ñu gën xam ci Njaga Jub di taalibe sëriñ Njaga Sylla imaam korok ñu ngi ci ayn wa kaana xaqan alay gi ci lañ yemoon ci ayn gi ala nabi muhammadin wal ali salli wa sallim wastajib suali te yu war a gi ci alay alay naa war a ci lil muntaqa للمتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا sëriñ bi kon ñu fàttali leen bokk yi de te xasida gi di xasida ak déyaalante di xasida ak ñaan di xasida ak cat di xasida ak xettaliku euh, euh, ak dimbaliku ci mboolem jullit yi rek ndax mu ñu seetloo ci biir xasida gi sëriñ bi julli na ci yonent bi sallallahu alayhi ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent muy 29 fois sëriñ julli na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal yonent bi waaye euh, jul bi julli ci ñaanal ko fukki yoon ak ñaar maanaam ñaanal na yonent bi sallallahu alayhi fukki yoon ak ñaar ci biir xasida gi ñaanal la ci jullit yi fukki yoon ak juróom way gëm yi sëriñ bi ñaanal na leen ci fukki yoon ak juróom muy 15 fois waaye ñaanal na ci xeetu yonent bi saa sallam beral ne la ak ñaan fukki yoon ak juróom benn yaa gis ne kon dëgg yàlla xasida gi daal dañ leen ko waxee woon rek ku ko saxoo di ko jàgg suba ngoon da nga doon kilifa ku am ba ci sa ci sa ci saw jooj bari ay jegle ak ay ay bóot ak ay lasraar ak lanwaar waaye dara yàlla buñ ci ubb yàlla yàlla boole ci yi nga xam ne gëneel xasida gi du ci ubbale dara ci jariñoo ko yàlla dañ ko yàlla defal ci barke sëriñ bi léegi tey nag ñu war a jël lil murtaqa aktub ma yasurruhu bila yi wa ab balaa kon da ngay jëkk a jël baytu kii bi ñaareelu baat bi muy uktub yàlla nga def sunu borom yàlla nga def lil murtaqa ñeel murtaqa jublu ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla nga ko defal maa yasurruhu lépp loo xam ne bëgg na ko lépp luy selal xorom rek yàlla nga ko defal waaw kon octobre dogal yàlla nga def lil muntaxaa ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy muntaxaa ñeel ko ki ñu tànn wala ki ki nga la ci yàlla ci baax yàlla nga ko defal maa yasurruhu lépp lu koy bégal lépp lu koy bégal yàlla nga ko defal bilaa nihaayatin te bu mu am yamuwaay bu am yamuwaay wata xambalaa te yàlla nga nangu xetmati sama liggéey kon fii da ngay wa ngay arafu waa ngay jël boole ko taxabalaa baatub balaa kon da ngay taqdim li arab naa taqdim da ngay jiital taxabalaa doo kete te yàlla nga nangu xetmati sama liggéey kon bayit boobu sëriñ bi day ñaanal sang bu teet bi sa alayhi wasallam woowee ko ci turu Muntaqa te am bokk ci turu yonante bi de ko yàlla nga defal sunu sag boobu di mu daqaa yàlla nga ko defal mboolem lu koy bégloo te mu am fu mu yam te nga nangu sama liggéey yu ñëw ci yaa gi nekk ci alay naa yaa gi ci nekk mu ne ko yassir li sayidil wala maxtaara yaa baqiyan jaalahu muxtaara yassir li sayidil wara maxtaara yaa baqiyan jaalahu ñoo ngi jégalu tey dañoo xaw a soj waaye ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu gi di muy xaw a desee leer yasir yàlla nga jàppandal li sayidil waraa jeel sangu bindéef yi nga xam ne mooy sangu bindéef yépp yàlla nga ko jàppandal maxtaaraa la mu lépp loo xam ne tànn ko rek yàlla nga ko jàppandal yaa yow yàlla sunu borom yow bi nga xam ne yaay aji des lépp fii bàyyeekoo lépp fiy jóge ba mu des sunu borom tabaaraka wa taala la ko waxee ci alxuraan kullu kullu kullu man alayha faan kullu man alayha faan wa ci wajhu rabbika zul jalali wal ikram lépp fi bàyyeekoo ba des sa jëmbi sa borom ju tedd ji kon lépp fi bàyyeekoo kon su albaaqi daa bokk ci turi sunu borom yow aji des ji ma melokaan ci melokaan yi sunu borom yi tabaaraka wa bokk la mooy amul fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaw wa huwa qadimun maa lahu bidaaya wa zu baqaain maa lahu nihaaya noonu la ko sëriñ bi waxee woon euh, moom mooy ki xam ne moo jiitu te amul fu mu waaye moo fi des te amul fu mu ko ci tur woowu ni ko yaa baaqee yow bi nga xam ne yaay aji des ji jaxalawu def nga def nga ko moxtaara muy ku ñu tànn def nga ko muy ku ñu tànn muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne def nga ko muy ku ñu tànn daal yow suñu borom yàlla nga jàppandal dal lu mu tànn rek moom yonent bi nga xam ne mooy sangu bindéef yàlla nga jàppandal lépp loo xam ne tànn na ko. alay naa ñu ñëw ci naa gi ci duut gi mu ne naafiu salli wal tusallim fii abad ala allazi laka yaquudu man abad mu ne ko naafiu yow yàlla yow bi nga xam ne yaay aji jariñ salli yàlla nga dolli xéewal wala tu bi te yàlla nga dool dolli busal fi abat ba faw alallazi ca ka nga xamante ne nga tëb euh, baat bi di nga teg ci beneen baat bi alallazi ca ka nga xamante ne yaquudu dana wombat bana amat képp koo xam ne mi ngi lay jaabu rek dina ko wombat laka jëme ko ci yow bu ne ko yàlla yow sunu borom yow mi nga xam ne yaay aji jariñe da ko woo ci turu naafeex yàlla mi nga xam ne ku am jariñ rek moo la jariñ mu ne ko yàlla yow mi nga xam ne yaay aji jariñe yàlla nga doolee wóolu te doolee defal euh, teraanga ba faw nag ci ki nga xamante ne mooy wombat képp ku lay jaamu rek moo koy wombat jëme ko ci yow képp ku bàyyi xërëm bàyyi bokkaale nekk ci li deex yàlla yonent bi sallallahu alayhi rek ngay àndal mu wombat la jëmale ci yàlla bëgg a am gërëmu yàlla sunu borom tabaaraka wa alay naa naa gi alif boo ko xëcc naa gi alif boo ko xëcc alif googu nag lay ñëw ne uktubu salatan li jamii al anbiya wa rusuli bi taslimi washkur kutbiya bu ne uktub yàlla nga dogal wala yàlla nga bind yàlla nga def salaatan xéewal li jamii al anbiya ci booleem ji du sol ci boolem yi nga xam ne xam wax nañ xibaaru bis yoo am yonant xam ne xam nañ si xam nañ ko xam nañ li li ab yonantu war a def doxalee xam xam nañ am xam am nañ xam bi waaye amuñu digal jottali ko nag ñooñu loolu yàlla nga leen jottali ay xéewal yàlla nga dogal ci ñoom ay xéewal ñoom ñépp war rusuli ak ñi nga xam ne am nañ xam-xam boobu xam-xam xam-xamu solo bi xam nañ ko ba pare ñu am digal nag ñu yónni leen war rusulu mooy ñi nga xam ne yàlla yónni leen ay envoyé lañ di eh, tasaare mission bi yàlla di di ci waare di ci xuppe di wax li yàlla bëgg di di di béral tamit li nga xam ne suñu borom dañu koy tere wa rusuli ak dawam yooyu noonu nga jottali leen nga dogal ci ñoom xéewal bi taslim bi ànd ak jàmm bi taslim yi ànd ak teraanga ànd ak jàmm washkur yàlla nga sant kut bi yaa sama bind sama bind bii di sama xasida gi yàlla nga ko gërëm euh, gis nga waccaxal kitaabatiya gis nga ko yàlla nga def sama mbind bi jublu ci xasida yi yàlla nga def sama araf yi gis nga ko loolu lépp sëriñ bi da koy faral di ñaan ci xasida bi jublu ci xasida kon baat di ñëw ci xasida yi washkur yàlla nga gërëm kot bi sama mbind sama xasida yi yàlla nga kon nee na ko yàlla yàlla nga def xéewal ci mboolem ñi nga solo ak ñi nga te doon leen defal jàmm te nga gërëm sama bind bii di sama xasida gi boo waat ko alaynaa kon pare noppi da ci alaynaa gi bu war a ñëw nag ci nasru wa kaana xaqan alaynaa nasru bu war a ñëw ci duud duudug nasru mu ne naafiu salli wal tusalli bi ixtiraam ala nabi wal aali wa saxbi kon ñu ci ñoom ci page cinq te foofu lañuy ñuy tey ci sunu ñetteelu jataay ci téere bi di wax kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin mu ne naafiu yàlla yow sunu borom yow bi nga xam ne yaay aji jariñe naafiu yow bi nga xam ne yaay aji jariñe salli yàlla nga dolli xéewal waltu sallim te yàlla nga dolli busal yàlla nga dolli defal jàmm bi ixtiraam ci bu ànd ak war ma nag boo xam ne danga ko koy danga koy defal bu doon war ma rek alal nabi ci sunu yonantu muhammad alayhi salaatu wasalaam walla ali ak waa këram wa sax bi ak ay saxaabaam ñi nga xam ne jamono te woon nañoo moom jamante woon nañ ne ak yonent bi sallallahu alayhi daal koy gëm alkiraam tey tey tey way ay tedd tey tey ñoom ñooñu loolu di saxaaba yi ay way tedd lañ yàlla teral lañ alkiraam mooy ñooñu nga xam ne way tedd lañ kon yàlla yow sunu borom bi nga xam ne yow aji jariña nga yàlla nga doole defal xéewal ak jàmm gu ànd ak teraanga ci yonent bi ak waa këram ak ay saxaabaam yi nga xam ne ay way tedd lañ loolu kon mooy euh, darsu tey bi euh, ba beneen yoon incha allah ngeen doon ànd ak seen bokk njaga jub di taalibi sëriñ njaga si la imaam lu ci juum ngeen jéggal ji ko yàlla ju yàlla boole jéggal tey nag kàddu gi xaw naa soppeeku tuuti te dañoo xaw a soj waaye noonu la rek boobu daal yàlla ñu ko sëriñ bi nangul yàlla loolu dëgg-dëgg liggéeyu sëriñ bi te ñu am ci jariñ bu dëgg-dëgg jariñ xasida gi nag moom liñ leen ko waxee woon rek euh, juróom benni bunt yi dinañ ko portale incha allah dugal ko ndax yenn mbokk yi dañuy woo ci suuf di ñu ko faral di laaj di ñu wax nañu pour ñu leeral leen juróom benni bunt yi kon dinañ ko foto yónnee ko fi ñuy def flèche rek foofu la but benn bunt di jeexee fu ñu defaat beneen flèche beneen bunt duggaat ba juróom-benn bunt yi su ko defee foofu la ñuy dugal aajo yi ci dénkaanam Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim yàlla yàlla bay ju jariñu ci ñun yëpp ba yëg ci jariñ bu baax a baax a baax a ndax xasida gu bari jariñ la waaye yàlla nañ ko jariñoo ñun yëpp rek képp kuy dégg sama kàddu rek ngeen fasaaleel ma ci rek ku ci koy jàng rek nga ma ciy fasaaleel ñu dajee ci tawféexu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.